عن hibaatu sirr asim asimi samadi yaa siyaare ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ñëw tey doon saytu nataal yi ñu wax ne sëriñ bi la te buñ ko saytoo it mu nuru ko lool euh, fi ñuy tàmbalee nag mooy ndokkeel la ci weer yu nekk muy weeru koor gi nga dimbalu ni ci itam lool ci jotaay bii nga xam ne yaa ko feeñal muy al mashrabu saafi min al manbai te kenn ku ne ci ñun ñi fay ñëw xam na ne ba mu ci tàmbalee ñëw ak léegi wute nag ba mu ci ba mu ci dala wute ñëw ci njëriñul bi biti kon loolu mbooloo mépp ak yoon wépp ak jullit ñu bëgg lu wax lépp ñu ngi ñoo ngi ci sant di ñaan mu yàgg di topp ci ndokkeel giit mooy jàngukaay bu mag bii nga xam ne ndigalu sëñ bee woon mel na dañ la ko dencaloon mu defal la ci tawfeex it lool li nga ci yéene lépp yàlla na yegg ba nga naan yeneen teggale ko te naan ko yow di la sant ci jiitu gi nga jiitu fi sunu kanam di nu wan nin war a ànd bi bokk na ci say wax liggéey bu mooy i'laa'u kalimatillahi al-ulya bokk na ci itam bu laal suuf bu mu suuf nag soññi na sama maas lool kon noppalu jeex na nelaw jeex na man mi nga xam ne dama bindoo tayel dimbalee nga ma bu may du ma ko def xel mu dal xel loolu yaa ko dimbale ngir kiinu nu àndal musta noppal musta toog kon wan nga nu ne ginnaaw doona topp ci gannaawam liggéey bii mu fi bàyyi bu urnoo seeraan ba mu laal suuf ku yor lu wërta laal suuf nag waxuma ne la waaye jax jayaxu sax waru la kon dimbali nga nu bu baax bun bu bu doyee de ba di ko ko defe xel mu dal te loolu yaa nu ko yaa nu ko yaa nu ci dimbali jërëjëf yàlla na yàgg loolu Mbacke léegi nag liggéey bi euh, mi ngi nii def nañ ci ay gëstu yu bari ngir ngir ngir di wóor li di wóor li rek bokk na ci cëslaay yi ñu def ne yi tax ñu ñu jàpp ne mooma waxi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam ne fekke woon na jotaay ba dafa wax ne wa kaana yowmal isnayn daxwatan ubtudia fi lbina nazala cheikhu fi xufrati lqubba te nuru na ko ndax daa mel ni fi mu nekk moo gën a suufe fa lañ fañ taxaw ci kaw waaw maanaam waaw indi ko maanaam fële la fële la feeñe wala bii ci sa waaw ndax daa mel ne daa mel ne ñële ca kaw ñoo ñoo tiim fi mu nekk ci saayir waaw kon mandarga wu na ci nekkoon waaw waaw fee daa mel ne moo gën a kawe fii waaw mu ne waaw daa mel ne dañoo ne dafa gën a kawe fi fi saayir fi sëñ bi waaw waaw mu teg ci ne wa cheikhu muxtaar bint almadkour bi janibihi wa bi yadihi inaa u tiin wa axada cheikhu alat albina almalaj waaw moom la téye noonu wa axada min attiin wa basmal hmm. wa wadaa tuma axada xajaran wa wadaahu ala tiin foofu it am na fu mu feeñewaat dafa na waaye daanaka mën na bii mën na ko yóbbaale summa axada al miwala wa basmal wa daraba ala al xajar summa tala wa id yarfacu ibrahimu alqawaacida min albeyt wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiu alalim summa tanaxa an maxallihi wa salla rakaatain tanaxa an maxallihi mel na ne kon jóge na fii dem fee wa salla rakaatayni kon wadaa wadaa da mooy mujj ba la xam naa mooy taay la wala wala ñaan daal mooy moo tax ñu mujj ko mooy foto bee ci gannaaw loolu loolu la daanee la wax ji <laughs> ak loolu nag teewut def defoon nañ ci yeneen gëstu yoo xam ne ci taxawaayu ñoom si Abdou Aziz mi la tuddee woon seen bopp diwaanul maarif def nañ ci ay ay ay jàngat yu bare bari ci méngale melokaan yi ñett li ci moom ak liñ gis ci kaw nataal yi mel na ni lépp ànd na kon daal bu fi liñ jàpp mooy sëriñ ku baax ku baax kee waaw ñoom ñu taxaw ci bu rafet andi ko doon la doon la taw lépp tawfeex ji nag mooy li mu dajeeg ngay sëñ Touba tamat ko sëkk waaw kon loolu ca taxaw sëñ bi yow la ko defal xam naa li ci des ci leeral kon mbokk yi daañ ci ñëw incha allah mbàkk ñoo ngi siyaare bu baax ñoo ngi siyaare ngeen nga te di siyaar leen ñaanal ngeen yàgg fi te ndax seen yàgg fi mooy sunu njariñ it mooy sunu sunu ndimbal eh, noo ngi sant bu baax a baax sunu teewaay fii ci seen kanam mel na ne suñu girug dund mu ne su am lu raw lii ngir dab seen mbékk ndax seen mbég mooy mbégum sëriñ bi te lii kat ni ko sëriñ Chérif waxee daa bokk ci jagle yi nga xam ne sëriñ bi da leen koo jagleel loolu nag di di ndamal lislaam di ndamal yoonu murit di ndamal àdduna day day sofu rek ci ndam yu yi nga xam ne feeñ na di université bu mag bii bi nga xam ne mooy tabax muriti suba julliti suba sénégalais suba yi nga xam ne ñoo war a dimbali jamono di jumay masakal masalikal jumaan ju mag jooju nekk ndakaaru di firndeel seen taxawaay rek ndax booy xool photo bi ci waxtu wi mu ame daa dëppook waxtu wi ndax daa amee woon ci jamonoy guerre première guerre mondiale ame ci jamonoy mbas ñaari mbas sax jamonoy peste ak li tubaab di tudde grippe espagnole sëriñ bi doxi ci doxin wii te ñu ko doon nettali di jàng sëñ Modou Lamine Diop Dagana mu feeñale ko ci yéen loolu nag ak cant la te doxin woo wii kat mel na ne dafa dëppook doxin wii ndax ci seeni dogal mel na ne ab docteur la ci seen ndimbal boole woon ngeen ma ci kuréel bi nga xam ne mooy saytu mbas mi ci 2020 waaye na ngeen ci doxe arab di ko tudde sumuud bu doon baati tubaab ñu naan résilience adduna sépp yéemu nañu jumaay tubaab musta tëju màggaluk sëriñ tubaa ngi jëfe ko mu raw fuuf nañ ko daan defee te it dara xewul loolu ñun docteur yi la njëkk a jaaxal waaye ndax li ya taxoon kat yéenay moom donc bu ñu amee tawféex dajeeg moom xanaa li baat wolof di wax naan ëpp ñu yeesuñu te cet jàppuñu ndax jamono te ñoo ngi yéen dimbali ngi ñu ci jariñu nañu ci yëf yi nag wóor na ma làqub sëriñ bi la ak ab dencam xam naa day dugg ci ca baat ak ak ak la ma waxoon yéen liseey rek ca jumaay bantam ja ko waxoon yelli sëy wala commandant ba ba yàqoon jumaa ja ya da ko xeer tegu xeer wii dinañ dem ba réewi nasaraan yi ay taalibey Sëriñ Tuubaa bëgg ko di ko xeeñtu di ko topp ba man koo faggoo lu ëpp la tabaxe jumaay njaareem ci ci netaal bi rek te waaye loolu amul njëkkat ndax sëriñ bi moom amul njëkk waaye seen dimbala ay murit murit jaar nañu fi ay julliti jullit jaar nañu fi waaye tawfeex ji nga nu defal ba ñu dajeeg yéen mu feeñale ko nii ma ko feeñale nekkoon ci album Jean Joffre nga xam ne moo doon architecte jumaa ji moom ba muy faatu 1939 la faatu waaye bagages yi ñu koy donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamono jii seen jamono ju neex ji mu dëppook jamono joojee mu feeñale ko nim ko feeñale bi mu ko génnee ci internet bi murid di ak seen xër daal di koy daw song mu tiit ndax loolu mosu koo gis mam bam koy jaay ci internet bi 3000 francs ñetti ñetti téeméer juróom benn téeméer la ko doon jaaye bañ ko ci fayee mu ne lii mënta ne daal di génn daw saytuwaat li mu yor jox ko maison de vente maanaam këru njaay gi nga xam ne France moo gën a kawe ñooña booy jël biñ koy jaay bis booba ay téeméeri téeméeri photo waaye photo sëriñ bi dañ jël teg ca kanam mooy ber ko sëriñ bi ber ber bi ko yàlla ber ak fes gi mu fes bis booba mbake ca buum ga ay naara ci nekkoon ak yeneen i xeet ndax sëñ Tuubaa ñëpp ko bëgg waaye ci seen ndimbal ak seen tawféex mu dajeeg téeméeri at ak juróom ba ñu jëlee portale bi ba noppi dëppoog 11 mars 1918 njaay mi 8 mars la woon murit yëpp nosu àndandoo takkatoo kenn xàmmee wala kenn li ñu bëggoon rek mooy mooy jotaay bi sa mbékk rekk lañ di doon sàkku bàyyiwuñ kenn sëriñ sërif jiite ko cim xel ci xalaat ci jëf ci dox ci wax ñu jox ko ceeg sëñ bas moom it mu nangu ko dimbali ci te jàppale ñu ci sëñ ab Abdoul Ahad Gaynde ma boole ñoo eneen murit yi nga xam ne xamante woon ndax ñu xamante sëñ Moussa Mbacke sa mos bi mu ko bi mu déggee ne loolu am na moom demoon na bay bay bay jënd waaye comme murit yee jënd mu ne li ma jël laa jël tabbi ci ñun ñu nekk benn say te booloo ñoom jëwdin alaaji mbàkk yu fay fédération murit bi nga xam ne ñoo nekk France sa muritu bopp yi takkatoo jëwrin sëñ Bamba Thiam ñoom Idrissa Dia sëñ Kanji Ibrahima ñëpp daal di booloo sëñ Xaadim Guèye li ngeen di xewal sëñ Fallou Mbakke ma woon Lyon dëkk ak waa ji doon naxtaan ak moom di waxtaan ngir mën cee jot Moustapha Sow daal di ciy tabbi Pape Birane Dieng sama rakk dëkk lëkkaloog ambassadeur ba ne France alaaji Maguette Sey sab taalube mu dox ci doxin wu am solo daal di ko yenu ba bis bañ koy indi keroog biir France ca ambassade ba consul yi Sénégal am foofu fépp dañoo ñëw mooy bu marsey bu Lyon bu Bordeaux ak bu Paris ànd ak ambassadeur Sénégal ba nekk UNESCO ak mbooleem ambassadeur yi nekk France bu Arabie Saoudite bu marok bu Tunisie ministre de la culture ndax xam dayab sëriñ bi biñ ko jotee ba noppi ak ak recteur u jumaay Paris di nit ku baax wax fa wax ju am solo ndax bi mu xoolee photo bi mu mu muñum sëriñ mi reem reem ju neex ji dañu fàttali sa sa jos ji mbàkke yaa neexi ree yéen rekk dimbali jamono nee na ree ji ak muuñ gi mooy leeral jamono mbàkke yàgg leen fi rek sa muritu bopp yaa ngi li nu bëgg rek mooy sàkku sa mbég ndax biñ ko jotee dañ koo saytuwaat boole kook eh, eh, jàngkat yu gën a mag ci wàllu woowu ba ñu bind ab rapport ne amul jiixi jaaxa amul sikki sàkk ci seeni paramètres bind nañ ko mu nekk livre bu mag mi ngi ci biir waaw ñu indi ko lépp ngir jëbbal si la ko lenn rek lañ ciy sàkku mooy sa meemoon lu bopp la di ci sàkku sa mbég ñu wutuñu ci lenn yàlla ngeen fi yàgg te gën a wér bi mu génnee sur internet sëñ Sérif bi nga koy wax sëñ Abdou Aziz Mbacke mi ci lool Mbacke moom de mu dafa def diwaan bi nga xam ne ñoo ko doon saytu lépp li ci war a am ak xam-xam bi ak dugalante bi génn bi lépp ñu bind ko ci rapport ci loolu lañ mooy cëslaay li nga xam ne ci lañ sikkalu ngoon koo xam boobu ba léegi nag bàyyiwul ci ci ci ci wane yeeg foto yeeg defar beeg moom daal Mbacke sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaw waaw jërëjëf. lépp lépp lépp lépp lépp dellu ngeen ko sëriñ bi. kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax alhamdulilah rabbil alamin waaw nii rek la hmm. waaw moom day da ngeen dégg sëriñ bi rek waaw ko dégg sëriñ bi moom. Eh, doy na waar waaw waaw waaw waaw moom day moom day moom day waaye man maa dellu sax ñu ne ma ko daa waxee rek sëriñ bi am na boo xam ne dama wax ne soññ soññ na gaay yàlla yëpp man maa ko wax soññ na gaay yàlla yëpp loolu sama mas naa ko wax mas naa moo wax it ne sëriñ bi ñiiwul kenn ci borom loolu mas ah, ci biir loolu itam sëriñ bi gaay yàlla yëpp jox nañu seen àq te ko ba ci suuf eh damay wax ne sëriñ bi moom laa jëkk a wax ne sëriñ bi xajju boromam la ndax mëne su ko ñàkk wutal tur te du yonent du malaayka waaye nag xajju boromam xajj nag mat naa xam ba xam na ngeen gën koo gën xam luy xajj sëriñ bi xajju boromam la moom rek lañ ko mën a tudde xaj nag yéemul fenn ndax mel na ne ki ko xejjal yéemelu ko fenn ci boppam waaw sëriñ bi foofu la nekk ñëwul kenn ci boromam waaye dañu ko seqal ñëpp yi jox nañ leen si dàq ba ma sëkk ba ñoom ñëpp yéene nañ ko cëram boobu man foofu laay xool sëriñ bi foofu laa ko digg itam te mooy dëgg ci man kon nag alhamdulilahi rabbi ndokk ak ndokk noonu mi na amee tawfeex ju tol ne sunu doom bind nu boole nag sëriñ bi foofu la tawfeex mën a yem kon nag ñun sant rek moo nu war alhamdulilahi rabil alamina seen taxawaay ci nan war a nan war a yëgee sëriñ bi eh, feeñal ngeen ko taxawaay yu mat na ko jërë ngeen jëf ah, sëriñ bi dinaa di wax itam nag eh, faw mu feeñ faw mu feeñ ci adduna bi xaw ma nu mu feeñee waaye faw mu feeñ mënu ta lu xaj lu fi xaj rek ci ci xam ne sëriñ bi dana dana feeñ na ci des nag bis ba lañ ko xam na mu ko waxee mais am na ay may yoo xam ne bis ba rek lañ ko xam kon nag fa tabarakallah sant nan sant yàlla bu baax nan sant yàlla bu baax yéen ngeen gën a sant yàlla bu baax nag a jéego yooyu ngeen doon seqi ak xalaat yooyu ak yitte yooyu daje yooyu ba ci jataay bi ah lu rëy lu am solo la lu am solo la lu mën a dundal ruu la kon nan nan sant leen tan sant leen yéen ñi nga xam ne yéen ñi ngi doon yéen yëngu ci loolu ba ci jotaay bi da ngeen sant bu baax nu nu nit nu sant leen ànd ko yéen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu rek ci mën a sànni ci kàddu yoo xam ne lu mel nu kàttan mën ko wax waaye sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan fokk ko boroomam toll fokk ko boroomam toll ah néew na kumpa ba ko boroom toll xaw ma ci dara de waaye néew néew te loolu rek moo ci am solo nag loolu dong nag moo ci am solo moom la xam yàlla rek fi ne mu jox mu mu mu jox ko ci mu jox ko la mu a jox yëpp lépp desul dara desul dara nam ko mu jox ko la mu ko war a jox lépp jox ko nam ko ko war a joxe dese loolu dara ci boppam lépp jox na ko borom waaw dénk la ko dénk la ko isnaale ijaas yu mag yi nag jox sa yuusu mi kërub xasida gi ñuy gi ñuy defal xasida yi ñu wut ca barab boo xam ne dañ koy tàmbalee loolu ñu loolu ñu ngeen di wax fokk ko fa ci biir ak ñu tàmbalee ko ñu fa wut barab boo xam ne dañ koy tàmbalee musée dañ ko tàmbalee musée def ko yi def fa yii ab tàmbale lay doon dana yëngut rek dana yëngut ci moom rek ndax na mën koo dunde jërëjëf dunde ko nag mooy texe gu béel jërëjëf texe gu béel bu yëngut jërëjëf